adiya laa ko def jëlal mu ni ko saab loxo loo xam ni lii xayru xalaal bul ko jëfaat it ci keneen gannaaw dangay fayu sa weer am luñ la jëfloo ci saxaar ak càcc lay doon dul wóor lii nga yoroon moomoo ko woon saa boo ba fay weer boobee la addiya di war fekk nga jiital nag sa kër bañ bég deman lii laa bëggoon wamilu lardi dahaba boo doon joxe ngoon basuba suba am cib dërëm bu doon riba danañ ko càmbar fukki yoon ma wax la tuut ci ak tabam nga ni gaynde ak tëbam bokkut akum muus duñu yam tab yépp suuxaloon na leen daam am ku ñëw di wut ndimal ba woo fa tàmbaa ñàkk dëkk bi kenn la fi xamul mu wax dinaa seet ilimaan ba mu ñëwee ba nuyu ko mu xool jëmam ja sopp ko tax lay itee mu nëbb ko seex jiili laaj ko lu mu doon mu ni ko aajo la amoon moo tax ba tey jii ma ñëwoon di la siyaar di sàkku dama jógeet fu sori woon sëñ bi ni aajo ja lumu waajaa nga sëgg yëramu ngir lim ba daa xaw a junni la bëggoon am na keroog ñu fa ne woon naa kii li wax lu doon téeméeri junni laa bëggoon kii daa wérul am lu mu doon sëñ daam maram mii femmu gannaaw nga xam ni gis na leen ba woo fa sori romb te dudd leen kon noppi leen fekkoon na jiili na ca biir waajaa nga beru fële goor sëñ bi ni këccët ab ubéer daldi ni sëñ daam diglu leen sëñ daam dëkki lim bëgg moom kenn ku dul sama boroom mënula teema def ko moom donte la sax nekku fi woon sëñ ba ni waaja ñaara am ñaar fukki junni moo am danaa la jox nga paas ci dem am am na loo bëgg batale woon sëñ bi ni waaja ñaara am ñaar fukki junni moo fi am naa la ko jox nga paas ci dem am am na loo batale woon bëggoon mu delluwaat këram ba mën a ti mbiram jaaxle du am ci waa këram sëñ bi ni tàllalal ma ñaan walla nga toog ba alxemes bu nu demee Tuubaa li des ma jox la daay jeexalu sas lii ma la wax bustaan la woon waajani ngan gi ma fi mus su ma fi doon toog bisi bis yàllante muy téeméeri bis daay toog baal xemes ca ngoon ba ñu demee lam ko waxoon la ko defal nam waxe woon téeméer yu mat la ko joxoon kum dig bëccëg lu yegg ngoon waaja fa baat ñaar fukk ya delloo ko naa ko aajo ya téeméer moo doon soxla ya jullit nga bégloo nga yonen seex jiili nag lum xas nisar dana ko def te lu mu nar dana ko def ndaxte du wor moo tax ba lii la ko waxoon lu xas ba génn saa loxo lu del si waat ci saa loxo boole ca far ko saraxoo sa yóbbalu bopp la woon waaja xamul tur wa doon muy tàggu naa sëñ ilimaan foog ni wu turam mooy limaan xamul ni jiili la tuddoon ñu ni ko jiili la tudd xamuma woon na mu tudd fa fiyam lu hoo muhammadu wala wa xayru raasiqiin am na ku ñëw it nuyu ko te bàyyi sëriñ njaay fekke ko lu muy siyaara amu ko mu sajjuloos kanam nga xiin te ma nga sol yéere yu yiw te sell sell yi wa yiw ma nga sa ngéem waxul lu xew ba yàgg rekk mu sàkku ñaan ba mu jógee ba génn dem la bay sëriñ xalaat xelam ni sëñ bi kii waxul mbiram teewul mu am lum ite woon doomi sëriñ Tuubaa ku ko nuyu te addiyalu ko ak ñàkk nag la xam nga ko lii la ko bàyyi sëriñ waxoon sëñ bi ni jiili dabi ko na ñëw ma far dimbali ko bëri ko joxal ma ko ak bu dugub mu boole leen laa biir ga bàyyi sëriñ yoroon waajur wa moo ko jàngaloon mu ne ko hu des na la neen soo may digal ma tudd leen Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale internationale.